asalaamaaleykum mbokk internet IYAT TV ñi ngi leen di nuyu eh, niñ koy defee jamono bu nekk ànd ak ki nga xam ne miin ngeen ko eh, avocat Sonko war a waxtaan ak moom ba tey ci actualité nationale comme niñ koy defee jamono bu nekk dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi maa ngi nuyoo di ziar di tàmbalee nuyoo bi ci borom dëkk bi Serigne Mountakha. Cheikhul mm. Khadim yàlla na ko yàlla. defal wér te yàggal ko fi lool ba may eggale naa lam mi di di ziar mboolem koo xam ne si yaa ngi seetaan yaat Média. Mm. di ziar waa Pastef Touba yëpp di leen nuyu nag. waaw jërëjëf euh, avocat ñu ngi lay euh, fay ci nuyoo bi di ñëw ak yow ci euh, suñu première question muy jëm ci li nga xam ne mooy candidature yi nga xam ne fan yi ñu ngi koy nemmeeku waaye ñu gën cee cité bu Idrissa Seck mu mel ni. Euh, digganteem ak Macky Sall euh, day bëgg a jeex ndax wax nañ wax na ne dafa dafay nekk candidat ci élection yi mille 2024 yi di ñëw ban jàngat nga def ci loolu. Fallou candidature Idrissa Seck moom jàngat ma ci am mënta du bare sax nag ndax man ñooñu dama leen a talut man ay Idrissa Seck yi dama leen a talut ay ay ay ay vétéran politicien lañu. Hmm. te yàlla daa dogal waajoo ji doon nit koo xamante moom jàpp na ne lépp des koy lijjanti. moom Idrissa Seck. koy lijjanti moom jàpp na ne pour mu nekk président da koy lijjanti. Hmm. essayé na ko ak Ablaye Wade na ko <clears throat> ak euh, moom lay essayé moom lay yaakaaroon ak Macky Sall mii ndax amoon am na ma xamoon ñoo xam ne si nii bi muy doog a dem. Hmm. dañu wax naan 2024 ñun ñooy nekk candidat wu APR. loolu la Idrissa Seck. ñoom ñoom loolu lañ waxoon. Hmm. xaw ma nag mooy am xaw ma dañ ko doon bégale seen bopp. mais ñoom lool lañ mas a jàpp ñoom dañoo jàppoon ne 2024. Macky du nekk candidat ñoom ñooy nekk candidat wu benn bokk yaakaar. Mm. loolu lañ jàppoon léegi nag ginnaaw waa ji xam na ne moom nguur gi moom da cey jël bakkanam teg ko ci. Mm. waaye léegi xam nañ ne maanaam fi ñu doon nii dem wuti doo nga des te nag yi nga xam ne si ñoo ko joxoon bopp 2019. est ce que ña nga fa ba léegi jàpp naa ne mu yëgoon rek toog ca bureau soow ba de. waaw bari ñoo xam ne ci Idrissa Seck lañ ànd boo xoolee ñu ci gën a actif jamono yi ci wàllum euh, attaqué opposition bi euh, ñu ci bari ci. réew mi lañ bokk bu Idrissa Seck te tey bu fekkee ne Idrissa Seck ak Macky Sall taxalikoo nañ ñooñu est-ce que tamit seen crédibilité duñ ko xoolaat aussi. particulièrement Ousmane Sonko yéen wax ñiy attaqué Ousmane Sonko bul wax opposition bi. Ah, Ousmane Sonko euh, xam nga nag wax naa ko waxati ko maanaam saaga Ousmane Sonko day day day fay ci réew mi. waaw saaga Ousmane Sonko day fay ci réew mi te ñoom ku ci bëgg taxaw position bu baax wala ñu nga ràññeeku rek faaw ngay saaga Ousmane Sonko. Hmm. ñoom loolu lañ ko jàppee boo xoolee euh, seen ministre boobu jatara ak nangam maar mm, te sant maar affaire boobu ñuy waar rek fu mu toll ñu koy vaar mm-hmm. maanaam ñoom dama koy faral di wax dama naan euh, ñoom ñooy ay allié xaw ma allié la xaw ma ay euh, nuñ koy waxee euh, ay transhumant mm-hmm. yi nekk benn bokk yakaar ñoom ñoo dàq attaqué Ousmane Sonko. ay dañoo dañoo coalisé ak ñoom. ay transhumant lañ way ñoo xam ne si seen seen fàllu bàyyi rafetal bi ay transhumant lañu yu bon sax na jóge fële dem mais ñoom seen parti moo ñëw ànd ci coalition bi loolu ay transhumant yu bon lañu ñu nekk dakaar ak ñu nekk ñu nekk Touba nag ñoo ci gën a waye di hmm. nangam Masere xam nga Moustapha Mesere ay gars yooyu noonu ñoo ci gën a waye di laa la wax nii ndax ñoom ñoo ñëw hmm. jël combat bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ñu ñëw ko nekk au devant hmm. gën cee mën a wax lu bon gën cee mën a sos gën cee mën a kàcc ñoom ñoo engagé loolu effectivement ñoo ci gën a waye di maanaam transhumant yi nga xam ne ñoo dem ci APR yëpp waa réew mi ñoo ci gën a waye di hmm. gën cee maanaam ñoo ci gën a mën a wàcc di ko lekkaat daal hmm. moo tax liñ ñu leen di kenn du ko vaar politicien est-ce que Idrissa Seck tamit euh, xawut a jaaxle ci ñi ànd ak moom ndax dégg nañ ko ci biir discours bi mi ngi wax ne képp kuy responsable kuy responsable ci parti réew mi euh, na nga ma indil euh, benn fooy boo xam ne di nga ci def ñi nga xam ne mooy euh, sa euh, gox ba nga dëkk ña nga ña la def responsable euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa ginnaaw ñëpp nga recensé leen def leen ci benn document indil ko ko est-ce que tamit xalaatul ne dafa. électorat bi mu amoon da ko xaw a manqué aussi. Fallou. Mhm. waa réew moom fi toll nit bu dee suñu tuubaa yi waaw amatuñ fa kenn. xam lan la ñuy def muuroo muuroo la ñuy def fi mu toll nii gis nga mm. liste boobu leen waaji laaj am na ci ku ma gis sax d'ailleurs muy muy muy muy rasu moom nee na bis bu Idrissa génn fa la koy bàyyi ah. kooku xam nga ne dèjà moom kayit bi tiital na ko mm. maanaam fi mu toll nii gars yi ne ci dëkk bi buñ bëggoon a wut kayit woowu man sax bu ma demee ñu bind ci man sax bu ma demee laax da ñu bind ma ci yóbbul ma Idrissa Seck mm. dañuy fekk benn groupe rek wala ñu jël seen waa kër kër gi ñu dendale kër gi ci topp bind leen ci kayit yi dem yóbbu Idrissa Seck maanaam naxante naxante naxante naxante na ci média yi di wax na ci euh, site internet yi dem ci télé yi xaw ma waa ji nangam mesere moom xaw yi ku ko fayal temps d'antenne mais moom gis naa ko mu saf sàpp Futurs Médias gis naa ko mu saf fa sàpp te xam naa ne amul fukki dërëm yi mu fayee temps d'antenne moom ndax ku joobut moom doo kookul ban niveau ban niveau la am bañ di ko invité amul niveau. Ah, kooku amul niveau amul xam-xam xamul dara xamul sax lu mu war a wax day réer. am koo xam ne dina dina mën a indi ay éclaircissement ci affaire yi. éclaircissement wala wala wala wala wala wala wala sos. Hmm. wala wax loo xamante ni boo xëyee ñëpp di la reetaan. Hmm. loolu la ñuy def ñoom saa bu ñu ubbee seen gémmiñ rek. dañuy ridiculiser seen bopp ñoom ci la ñuy dox. amuñu ci nag benn benn kii ndax maanaam amuñu vergogne. jàpp nga ni Idrissa Seck mën naa am la mu amaatoon ci élection 2019. Idrissa Seck de fi mu dool ni waa këram sax duñ ko voter loolu moom lu ma leer la moom Idrissa Seck. Hmm. moom li mu waroon def rek mooy jéem a las ci mburoog soow bi. ñu continuer di lekk xaalisu réew mi ba sa waay dem rek. loolu moo moo gënoon ci moom. Hmm. voilà bu sa waay dem rek ñu ànd ñoom ñoom daal dem euh, euh, poubelle ba dem retraite. Hmm. mais Idrissa Seck ñëwaat na ci géew bi. kan moo koy fal Idrissa Seck fan lay nekkee président ci réewum réew. jeexal na fi. Sénégalais yi kenn du leen war ñetti yoon war na leen ñaari yoon. Hmm. du ñett. waaw ñu ñëw warkat la. ñu ñëw ci euh, ba tey seen leader mooy Ousmane Sonko euh, bu ñuy ñëw ci côté boobu nag campagne de diabolisation bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fan yi euh, mel na ni léegi daal ñu ngi koy jël di ko dóor ci kaw sëriñ si ban jàngat nga am ci loolu. ñoom ñi ngi essayé. Hmm. mais nag jàllul. ndaxte damay faral di wax ne campagne de diabolisation bi mi ngi def effet ndax lan. Ah. effet bi muy def mooy saa boo xëyee gis kilifa gu bees. Mm. ñëw fekk si Ousmane. Mm. te man damaa seetlu fii ci ci ci Touba fii. Ah. wallaahi alazim kilifa yi nga xam ne ñoo fi bëgg Ousmane ta waxuñu. Mm. maanaam duñ wax. duñ génn ci eh, kii ñu leen di gis. kenn xamul nu mu toll maanaam ñi fi ab valeur. Touba gii ma dëkk laa de ñi nga xam ñoom lañ fi gën a nawloo. ñu am fi ñu am valeur am lu ñu bañ am dignité mm. lu baax rek la ñuy wax ci Ousmane dañoo bëgg Ousmane. maanaam ñi nga xam ne si nag maanaam teguñu leen fenn amuñu benn valeur maanaam bu buñ jaaroon nii man luñ ma jóg di joxe loxo. Mm. ñooñu laa gis ñu ne ci di mbereerare di wax rek. te ñooñu noonu tekkiwuñu dara démb ak tey. c'est que nag Mbàkke moom. wala beneen sant boo gi sant la rek comme yeneen sant yi. Eh, est-ce que du li ñu àndut ak yéen a tax ngeen di wax loolu tamit. déggal teewuñ nee naa la. Ah. kilifa yi nga xam ne dañoo am valeur laax de. non maanaam li tax li est yéen moo tax nga bëgg leen ñàkkal valeur aussi. am na ci ñoo xamante ne nii. Ah. avant ñuy ubbi seen gémmiñ di wax. waaw ah. man mosuma leen a considérer dama leen mas a multiplier par zéro ndax mosuma leen dégg ci dara loo xamante ne nii. mosuma hmm. leen dégg ci dara loo xam ne lu leen lu leen di honoré la. waaw ah. daf ci am ay business man quoi ñoo xam ne dañuy business comme ni mu amee ñuy business ci politique bi am ñuy business loo dem dafa am ñuy business ci gi. Hmm. voilà ay businessman lañu rek déguisé dañ leen di léeg ñu laalal leen xaalis bu ñu leen laalalee xaalis faaw ñuy génn ci internet bi wala ñuy dem ci plateau yi di di attaqué Ousmane Sonko. suñ ko defulee du ñu laal loolu day fay gis nga euh, élection législative. Ah. am na benn kër bu nekkoon euh, ci côté Ilipor ba. waaw damaa xamul borom. damay fàtte mm-hmm. turu borom ndax man ñaare ñooñu di ànd ak sa du ma jàpp seen i tur. Mm-hmm. dañ ko doon rang comme kuy jël audience. Ah. comme kuy jël audience ñoom ñooñu. jamono élection yi. jamonoy élection président euh, législative yi. waaw veyu euh, élection yi. Mhm. dañ ko doon rang ku dugg génn ku dugg génn ku dugg génn ku dugg génn ñoom ñooñu rek ñooñu ma lay wax noonu. Mhm. te loolu noonu honoré wu leen. Mhm. ni dangay am dignité li may wax chaque jour li leen seen li leen seen maam euh, seen maam liggéeyal. Ah. te ba leen koy liggéeyal boobu xamuñu woon sax ne Macky Sall dana am. waru tax ñoom ñuy jaay loolu noonu ndax dara waru leen koo jaral. Eh. li am moo ëpp loolu fop Mhm. li ñu am moo ëpp loolu fop te Macky Sall jamono jii ku koy wax dëgg da nga ne kilifa nga mhm. baatub kilifa di dox si yow nga bëgg wooye wooyee woone kilifa nga mhm. boo koy xamal da koy xamal ne ko bàyyil tooñ bàyyil nappaate ba troisième mandat bi ngay géem a lewal teg ko ci suuf ndax yaa waxoon ñëpp ne bi mooy sabu bu jeexalukaay yaa ko def yaa ko bind te nag gor ca wax ja waaye bu fekkee koo xam ne dafa bëgg a di nga bëgg koo sa euh, bëgg koo bëgg koo la ci goree dem googu noonu. Hmm. bu yàggee nga mel ne moom de. waaw yaa ngi wax léegi ne euh, campagne bi du jàll. Euh, mais tamit dafa mel ni fan yi gis nañu discours bi nga xam ne moom la waa boor boole bëgg a dégg lu ci bari dafa mel ni kilifa diine yi moom la ñuy tenir temps yi bañ nañ ko ba dañuy dagg seen wax sax di ko publier ngir wax ne Ousmane Sonko la ñu wax li Ousmane ban kilifa diine. ah yaa ngi leen di dégg tamit. lan lañ tàgg kay laa bëgg li ñoom lu ñu bëgg a politique mooy lan. doone ma déggoo li li nga xam ne euh, kilifa diine yi ñu ngi koy wax jamono yi ci ci réew mi di woote jàmm di wax ne lépp dal bañ ak euh, li nga xam ne Ousmane Sonko wax nañ ko mooy na na na dal na bàyyi ba élection yi jot mu soog a. ñoom ñoom ñoom ci seen droit lañ nekk. waaw ñoom bu ñu wootee leneen lu dul jàmm. Hmm. <laughs> defuñu leen war di. waaw seen da am ñoo xam ne maanaam euh, façon wooteen bi rek mooy jaaxal nit ñi. ay na toog ba élection yi ñëw ñëw ñu fal ko. Mhm. Ousmane Sonko gis nga bu fi toogee naan day toog ba élection yi ñëw. ñu fal ko moom sax du bokk. gis nga Ousmane Sonko. Ah, képp ndigal kon. képp ku lay gëmal laa de. xaw ma ndigal xaw ma képp ku lay gëmal naan la. Hmm. demal nga wuy ji. Ah. demal nga nga nga nga toogal. bul yëngal bul def dara ba élection yi ñëw ñu tiiga ci complot bi la bokk pour muy leer ku la koy wax nag laax de ci complot bi la bokk. Hmm. tudduma benn tur dama ne képp kuy wax loolu. Hmm. ci complot bi la bokk dalaa bëgg a yeew ba nga jekk mu tëral la jox Macky paaka bi mu rendi la. Hmm. bañal. Ah. bañal dafa am ñoo xam ne si dañoo dañoo dañuy complot déguisé déggul ndigal tamit. yow yow donc loolu du ndigal déggul ndigal aussi. loolu du ndigal xam nga loolu hmm. mooy lan nit ki. Ah. nit ki ñëw na seet si la wala nga war a wax ak moom nga yaakaar ne war ngaa wax. nga di ko digal pour mu suicidé wu kese la. waaye li ci réew mi information yii. mënumaa nangu kenn ku ne amuloo information yi xew ci réew mi hmm. ndaxte fi mu toll nii xale yi doog ko judd sax dañuy informé wu jamonoy réseaux sociaux la ñu nekk hmm. information yi day daw cinq cinq la information di demee ñëpp am information ku ne xam na li Macky Sall nekk ci réew mi hmm. koo xam ne si da jël wax jooja nga jël ko teg ko nële waxuloo ko nga wax sa waxi bopp yow la ne ah. Ousmane Sonko daal leen laa koy xelal mooy ku lay digal naan la demal nga wuy ji demal nga yeew sa bopp jox ma Macky Sall bu élection yaa ñëwee da nga bokk bis bu ñu la ñàddee bañ def la li ñu lay def tamit bu élection yi ñëwee nii ñu defoon la ñu defaat jàmm duñ jëm tërin benn discours bu dul lu dul jàmm jàmm ko gën wuti leen jàmm réewum réewum jàmm la nangam nangam réew muy am réewum jàmm nag day fekk jàmm ñaara koy dox booy wax ñi wut jàmm dangay wax ak ci bopp réew mi di utiliser loo xam ne Sénégal a ko bokk di utiliser police gendarmerie BIP GIGN ku ne mu di ko wàccee di ko dóor ci kaw askan indi na fi ay grenade lacrymogène yoo xamante ne nii réew yu baree baree baree baree baree ci monde ko di ko dóor sénégalais yi barki de démb xam nga barki dem seetaan naa benn vidéo boo xam ne ñu hmm. si nii waa benn euh, clinique gis mu dem ñu indi leen ñu leen indi ay oxygène di leen ko di leen ko di leen ko kii ndax lan grenade bu bon boo xam ne baaxul ci nit ñi yooyu lañ war a wax ak moom wax ji foofu la ne hmm. foofu la ne Mm. la doc la docteur Abdourahmane Diouf wax sëriñ bee ah. mooy li ne mm. jàmm jàmm bu doon ab bunt la bu doon ab néeg la caabi bunt bi Macky Sall la ko yore kuy wax da ngay wax ak Macky Sall ne ko wutal jàmm bàyyi xupaate bàyyi napaate bi li Macky Sall nekkee ci réew mi kenn du ma gisu ko gis nañ mm. ko ñëpp ko gis xanaa wax ko bañ ko wax a fi nekk loolu doo ngay wax ji waaw ba tey euh, doone xanaa euh, Khadim buso dégg nañ ko euh, depuis Ousmane ko commencé politique euh, ba léegi mi ngi alerté di wax ne salafiste la di wax ak yeneen euh, xeeti diabolisation yi nga xam ne euh, ñu ngi koy dégg ci moom fi mu toll nii nag dafa mel ni dafa gën a jël à auteur hauteur ndaka nga gisee discours yi Khadim Bousso yooyu. wax nga wax ji de nee nga diabolisé. effectivement moom depuis Ousmane Sonko di Ousmane Sonko ba léegi ci lay dox. Hmm. ndax nag waxoon naa ko fi sa scène bi dama koy waxaat. ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. bi mu koy wax ma nga woon États-Unis ñibbisi na paasal nañ ko mu ñëw wala euh, yaa ma gën a xam fexe nañ daal ba mu ñëw ndaxte boo xoolee ñaare ñi wax ci Ousmane Sonko ñëpp dañ leen ni gàddu ñu ñëw télé ah. bu ne ñu yóbbu leen fa site internet bu ne ñu yóbbu leen fa mm-hmm. ñu toog def nañ ko ci Ellen Gueye ah. indi nañ ko fii mu wër plateau yëpp yëpp yëpp yëpp mu wër ko di wax ci Ousmane Sonko réussirul moom fi dol nii moo aye mm. ñëw na te yaakaar naa du réussir ndam du ko am mm. na noppaliku moom Xaadim Buso moom nan noppali ko gis nga lii muy def nii ñu ko ëppoon maqaama foofu jéem nañ ko ba échoué. Mm. gis nga taal bu yàlla taal. wóor na yàlla sànni ca matt moo gën di ko jéem a fay. Mm. yow boo moytu yaa cay fayee. Mm. te nag li muy diw ci loxoom yii na ci may kanamam gi. moo <laughs> lan lay diw ci loxo yi. xaw ma de maam Ndiaye Savon xanaa. <laughs> waaw euh, ba dégg nañ ko keroog émission baak euh, euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Imam Dramé wax na ko ba mujj am na point bu mu ko wax ne ko Ousmane Sonko ndax murit la est-ce que foofu la ñu war a xaar discours borom xam-xam boo xam ne nee nañ docteur la war naa mën a wàccee boppam ba ci egg ci laaj benn candidat boo xam mi ngi laaj réew mu koy laaj ndax murit la wala leneen. maanaam tey ma wax. waaw te amoo loo wax. Mm. faaw nga créer loo wax. Mm. wala doo wax. te faaw mu wax. dégg nga ma bu baax. waaw moom force mu wax. force day wax. léegi nag bu amul lu mu wax faaw mu kere xam nga boo demee bay daanu ci ay est-ce que diw nga est-ce lii nga est-ce lii nga est-ce que lii nga ñun Ousmane dañ koo doyee li mu doon. Hmm. ñun Ousmane Sonko dañ koo doyee moom jëmmi boppam ñun xam nga lu koy doyee. li mu mën a apporter Sénégal fi mu mën a yóbbu senegal hmm. kese lañ soxla ci Ousmane Sonko. doyewuñ ko taar doyewuñ ko juddu doyewuñ ko jantal meenam doyewuñ ko eh, diine ji mu bokk. Mm. doyewuñu ko tarixa bu mu bokk. Mm. xam nga ñun toog fii naan ay Ousmane ko murid laa yooyu dañ ciy bëgg a sonn sax nag. Mm. dañ ciy bëgg a sonn. xam nga léegi wax ji mooy lan. waaw ah. Senghor nekkoon na fii. doonul woon jullit sénégalais yi voté voté di ko votéel mu toog fi ñaata at 18 ans xaw ma. waaw Abdou Diouf ñëw kenn xamul lu mu doon. toog na fi 22 ans. Abdoulaye Wade mii ñëw. yàllaa xam lu ne jiñ nañ ko fi jiñ nañ ko bi jiñ ko faramason teewul sénégalais yi doon ko voteel am na wala amul effectivement waa jii ñëw bon xol mii te teewul ñu ngi koy voteel kon Ousmane Sonko du moom ci la ñu tàmbalee naan ay lii la ak laa suñ yoon neexul ci lu mu doon na mën a jëmale Sénégal kanam rek waaw euh, ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy lu bees la luñ gis ci parti Pastef euh, doomu daara ngeen taxawal benn euh, mouvement doomu daara boo xam ne peut-être mën na daan am ci yeneen parti politique yi mais ñu koy soog a xam ñun lan euh, ban gis-gis nga am si voilà yooyu laa bëgg nga ma koy laaj yooyu moo am solo. lépp lépp moo am solo kay nag. yooyu moo am solo. Ah. gis nga euh, Pastef. Hmm. dégg nga Ousmane li mu wax dafa leer Ousmane nee na taxawal nañ affaire bi ba la veille. waaw ah. la ko doog a yëg. Hmm. nee biñ ñee dañu fayal seen bopp saal bi la leen leen déedéet loolu moom du am. Hmm. parti bi moo koy fay. Ah. kon kooku taxawalu ko. dañ koo mm. dañ koo wuy si xam nga man la man la man la yow la yow laa ko gën a wóor. Mm. waaw moom doomu daara yi ñoo ñëw song si ko tax dañoo gis seen bopp ci politikam gis jub ci politique ku ne doomu daara. Mm. ku ne doomu daara la wax de. ne sëriñ daara. waaw xam diggante 2012 ak léegi niñ leen fàttee ci réew mi. effectivement mbirim la ci ñu jàpp tëj. ku jéng sab donga sax ñu jàpp tëj. te ku ne xam na jéng lan lay def ci donga ak ban donga la ñuy jéng. doo nga ñu ci jéngul ngay fàq lan ngay mujj doon agresseur wala yu waaw ah. buñ la buñ la jéngee nag ba def ci yow li ñuy def ba pare yow boo màggee yow yaay sant ka la jéngoon waaw ndax di xam ne contribuer na ci sa yar bu baax a baax fa nga naroon a jëm mooy fu bon fa boo mm-hmm. màggee nga koy xam mm-hmm. te ñi ngi bañ jéng tëj nañ ci ay sëriñ daara yu baree bari effectivement sëriñ daara bu ci doomam bu ci dongaam gaañu sax ci daaraam da mm. danañ ko fitnaal fitna joo xamante ne nii du bëgg lenn lu dul boo si bu dul ko bu paree tas daara lay bëgg waaw lu ne xew na fii ci 2012 ak léegi ak sëriñ daara yi. lu wér léegi nag ñoom nan la ñuy wuy nan la ñuy maanaam li ñaan ginaar du topp kuy taxani xaw ma euh, topp kuy taxani kuy bojj lay lay àndal. fee xam nañ ne seen musiba rek moo fa ne. Mhm. fii yaakaar nañ fi ne kii nga xam ne si nii maanaam moom bu dul doomu daara tamit jàng na. Mhm. xam na li ci jàng xam na li ci xam-xam xam na li ci diine. Mhm. du leen du leen métital te du leen toroxal. waaw seen bopp seen bopp ci moom lañ ko gis. ñu ñëw war a ànd ak moom pour jàppale ko di ko wàcceel ay kaamil lu musta am mhm. di ko ñaanal ñu toll lu musta am mhm. séq ko koo xamante ne nii fu ñu baataree mu kub fa mhm. fu ñu teg mu teg fu ñu teg mu teg ndax lan jàng na bañ ne jàngi leen moom daa dem wutali boppam xam-xam dem jàngi ji nekk foon déglu ay tikken Jaafa Kule ay Alpha Bolondi ah dafa nekkoon université Saint-Louis boole ci dem di jàngi ji xam-xam ak alxuraan waaw ah. bokkut ak ka nekkoon ca université Cheikh Anta Diop ba di déglu ay Tiken Jaafa Kole ak ay Alpha Blondy ak ñoom seen ñooñu duñ benn. Hmm. duñu benn kii doomu daara la de nature kii nag doomu leneen la xaw ma lu mu doon. waa dégg nañ leen ñu wax ne dina ñëw euh, taxawal ñoom tamit seen euh, mouvement doomu daara. parce que ñi ñi ñi modaar lañ koy tudde waaw sama xel day bëgg a dal modaar moom ku ne xam na ne ab ab saabu la. am na sëriñ daara wax ne ministre bu woon leen sax. pour pour ñu tax sama xel lay bëgg a dal rek Fallou moo daal ku e xam na ne ab saabu la mooy saabu bi leen di fobeere ñu génn ci biir teeg ñoom seen xaw ma ay sëriñ daara businessman yooyu ah. ndax kere wutoon na fi ay imam businessman de ay imam ay imam businessman imam noonu lay hmm. amaatee ay doomu daara businessman rek dana ko wut dana dana wut fu mu ko mën a amee dana ko wut indi ko dajale leen hmm. ay hmm. businessman la ñu doon dañuy dóor rek gis nga uh, Ousmane ñoom bi ñu organisé seenum daje àjjuma lañ ko woote waaw ku xam na ne àjjuma uh, daara yi duñ jàng moom bam mu fi ne day dajale sëriñ daara yi. Mhm. alterné la leen woo. alterné waaw ça veut dire que ne jéemul sax xam yan jour lañ am ak yan jour lañ amut. Mhm. duñ benn affaire bi day mhm. ñëw naturellement. maanaam day ñëw naturellement nga di ko gis maanaam lu yàlla ànd la ak lu maanaam ku yàlla àndalut. bu yàlla ànd ak yow loo def du baax. ak contexte bi nga xam ne ci lay ñëwee muy context jamono bi nga xam ne ñu ngi koy jaboliseeg sëriñ daara yi ñu ngi koy jaboliseeg dafa bañ tarixa ci même contexte boobu ci la doomu daara bi taxaw. ñan ñooy diaboliser ba tey encore une fois ñan ñooy diaboliser ba tey. waaw yaa ngi ay nit ñoo xamante ne nii ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara démb ak tey man loolu fi toog am na ñoo xam ne saa bu ñu waar leen xam nga waar maanaam mais ñoom tamit euh, yow yaa leen di considérer ñu tekkiwul dara mais ñi ngi wax li ñuy wax di tekkiwuñu dara nag tamit loolu mooy wax ji ah. tekkiwuñu dara mais ñi ngi wax li wax di indi ay preuve di yan yaa ngi leen di déglu tamit yan preuve ah. ana preuve xam nga ah. toog naa nit ki salafiste la te mosoo koo gis mu doxal daray salafiste nee nañ ko fi terroriste nee nañ ko fi euh, rebelle ah. lu ne jiiñ ko fi ñu toll nii bii moo xaw bii moo bii moo bii moo ñëw gis nga ni bii ñëwee nii. waaw ah. noonu lay naax saayee comme ya fi jaaroon rek. Hmm. comme ya fi jaaroon rek noonu lay demee maanaam nag jommi. léegi ban impact la la. Euh, impact taxawaayu taxawaayu doomu daara yi am ci euh, contexte bi nga xam ne ci lañ ko taxawalee. taxawaay bi ma am maanaam lu li ma lay wax sax li ma lay wax léegi rek lu ñëw naturellement maanaam ñoom dañoo ñëwoon pour pour pour yàq. waaw yàlla ñëw defar. ndax ku xool saal ba la fa nekkoon ci ay doomu daara keroog te amu ci kenn kum jox paas. Mm-hmm. amu ci euh, euh, kenn koo xam ne moo woo. waaw maanaam dañoo ñëw naturelement mm-hmm. dañoo ñëw ndax lan dañoo gis seen bopp ci moom. Mm-hmm. loolu mooy lu yàlla woote. bokkut ak la nga xam si ña nga xam ne dañ leen di jox xaalis. dañ jox paas dañ leen di luyeel saal dañ leen di dañ leen di dañ leen dañ leen di dañ leen di. du benn. Ah. gis nga doo doomu daara yi. maanaam li may wax chaque jour rek Ousmane bul jéem a sax nekk fi naan ngay comme moom ni mu koy defee sax baax na nekk naan day tontu ay diabolisation yooyu bu mu tontu kenn nay doxal rek yàllaa koy doxal mbiram ñi ci des nag moom mu bàyyee ñi leen ñun ñun bojo bojo yii ndax bojo bojo bojo bojo koy tontu Ousmane am na ah. maqaa moo xam ne wër ta tontoonteeg benn hmm. bojo bojo nañu leen abal rek ñun hmm. comme que ñoom dañoo bëgg di dàggasante maanaam bu ne nii ñu ne buñ ne benn ñu ne ñaar ñi wettu wettalante ah bismillah ñu ne pare nañ man da pare naa nañ ñëw ñu dàggasante rek waaw opération wër ndomba lancé ngeen ko fii ci waanu mbake eh, lool ñu ci mën a indil comme leeral. opération wër ndomba bi. Eh, ñu bari dañ ciy xaar nag. waa mbake ak Touba département bi. Ah. particulièrement Touba ndax li am ci électorat. Mhm. li mu am ci nit. Mhm. ba pare li fiy voté. waaw néew loolu ndax Touba boo koy xool rek. mën nañu la maanaam li fi nga xam ne si moo fi yeewoo. Mhm. war naa mat 4 millions de personnes. du ko ëpplee te li fi voté du mat sax cent mille xam nga loolu c'est ñu bari li koy def nag mooy dañ dul am am am information yu war ndax jamono ji ñëpp bëgg a voté de mhm. mais dañ koo séq ak nguur goo xamante ne nii dafa delloo ginnaaw démocratie delloo bi nga xamante ne nii mhm. maanaam euh, chaque jour li muy dox mooy nombre d'électorat bi nu ñu nu ñu ñu diminuer woon nu ñu wàññi ko mhm. dem nañ ba def ko ci ba ba euh, dégg naa ñu ne préfet bi nga xam ne xama sous préfet bi fi jóge dem na ba jël euh, saam ak euh, ay côté ilipo rax ñooñu noonu mu sensé leen seen lieu de vote te tàgguwu leen tàgguwu leen tàgguwuñ leen mm-hmm. defaraatal leen ay carte yu bees defara leen ay lieu de sensé leen ay lieu de vote mm-hmm. may jàllale fi message boobu sax nag di wax ne képp koo xam ne si nii jot nga ci message bii ku dëkk saamak ak ki yooyu noonu nga demoon ci élection yi jàll ñu ne la mënoo mënoo voté fii te nga daan fa voté ah. demal commune ba. ndaam ah, boo demee ndaam hmm. boo joxee sa carte d'identité bu njëkk ba ñu jox la daan te bu bees tàq boo xam ne danañ la danañ la ci defal fi ngay fi ngay voté léegi ñoom ñëpp ña hmm. ñoom ñëpp seen i carte nga fa ñu defaraatal leen am non vote ak ne peut pas ñëw foofu ah. ñu am non vote yooyu. maanaam dañoo nekk ci réew moo xamante ni maanaam daa tegewul ci wenn yoon rek waaye ay non vote ci boppam moo amatu sax dafa xeewi dafa dafa xeewi. gis nga ak carte d'identité kese rek nit da ngaa war a voté. waaw citoyen am nga carte d'identité la jox carte d'identité bi kay moo waral ne war ngaa a voté ci réew mi ci réew mi nga bokk. Ah dellu ginnaaw gu ñu dellu ginnaaw koy moo tax ngay xam ne si da ngay wuti carte d'identité ba pare doog a dem wuti carte électeur ah. te war a am carte d'identité carte d'identité rek foo ko ñëwee présenté ko ñu leer la ne yow ci gox bii nga dëkk. Ah. war ngaa mën a voté ci gox boobu benn yoon. Mm-hmm. noon kese la war a de gis nga bu fekkoon arrière ñu maanaam ñun nag euh, avancement dañ ko daf mel dañ cee bëggul dara dara dara mais boo xoolee ba cim réew ba ci tubaab yi ñuy toppandoo carte d'identité kese la mm-hmm. ñu voté ñun ñu nekk fi naan la da ngay wut carte d'identité da ngay wut carte électeur te normalement carte d'identité bi ak carte électeur bi war a génnandoo ah. mais bañ nit ñi voté primo votant yi xam na ne arrangé wuñu ko moo tax booy wuti carte d'identité dañ naan demal police nga dem police boo wutee boo demee police ba pare nga doog dem bindu ji pour carte électeur am na ñoo xam ko mm-hmm. am ñoo xam ne maanaam lijjanti boobu sax xamuñu ko te nit ñi barke alxuraan dañoo bëgg a voté te nag ñun danañ def suñu maximum li ñu mën lépp danañ ko def ba nga xam ne Touba fii mm. lii bindu bi yoon da leen ni jaaxal ndax nag ku ne Pastef xam na nag détermination fi fekk baax mm. ku ne Pastef xam na détermination fi la fekk baax te gis nga bu ñu jugee dugg ci nit ñi ah. balaa liste balaa bindu yee jeex balaa bindu yee jeex ah. ñu recenser ñëpp loqati leen yóbbu leen ñu dem bindu ci am na ñoo xam ne sax bëgg nañu am seen carte d'identité am na ñoo xam ne démb rek ñu ngi ma koy wax ne ma seen carte d'identité mënut a mënuñoo voté. <laughs> te noonu yëpp lu war a saafara. loolu de lu bari dina ci moom néew ma lépp dana dañ de. mais bu bindu yi jeexee. Mhm. ñu bari danañ danañ danañ voté élection yi di ñëw de dinañ gis nombre boo xam ne ci Touba ñu voté. Mhm. mosuñu koo gis ndax Pastef ngay waxal nag. temps yi de moom dafa mel ni Pastef mi ngi bëgg a bari doole ci Touba ndax ñi ngi gis ay euh, leader yoo xam ne ñi ngi jóge ci euh, yaa ngi bëgg a soxor de nga naan bëgg a bari doole dañoo bari doole. ñi xam ne moo daan gañe fii ñoo bari doole dañoo bari doole macha allah. en tout cas. dañoo bari doole ndax nag sama gars yi dañoo liggéey de. sama gars dañoo liggéey de yoo xam nga ci dara. lu ñeneen ñi ñu ñooy liggéey loolu gars yi di wax di wax gars yi liggéey ñun ñooy liggéey ñun ñooy liggéey li li ñuy investir fii Touba xanaa tamit yéen sax investir lu toll noonu ñun saa bu ñu demee ci nit ñi suñu gémmiñ dëgg rek moo siy jóge ñun li ci am mm. dëgg rek lañuy ñuy wax ak ñoom duñ leen dig xaalis mm. duñ leen dig dara dañ leen wax dëgg rek te gis nga dëgg dafa neex mm-hmm. gis nga boo ko waxee nit ki da koy moom waaye nit ki boo ñëwee xiifal ko ba mu xiif nga di ko jox weccat mooy nga jàpp ginaar xiifal ko ba mu xiif nga di ko sànni pepp yabeel la mm-hmm. yabeel la yab nit ki la ki ngay jox xaalis bi danga ko koo yab eh, loolu ngeen di xeex ñun loolu la ñuy xeex mm-hmm. te nit ñi nag nit ñi commencé nag di éveiller seen ay di éveiller seen ay conscience di yeewu mm-hmm. nit ñaa ngi yeewu ñoom ma dimbalee leen loolu nañ jël xaalis bi bu ñu leen joxatee xaalis nañ ko jël denc ko dem ci nit ñi wax leen dëgg bu ñu demee xamala la leen wax dëgg gi hmm. dañ leen wax ne leen ñun danoo télé ñun mënuñu. 12 ans ñun baaxuñu. après 12 ans nga ngir yàlla dañoo bëgg nag ngeen fal ñu ci bon googu ngeen bon ngeen bon googu ñu bon. su ko defee ñoom bu ñu leen bëggee fal fal leen ci loolu bu ñu leen bëggul rek seet leen jàll ci leen mais nañ leen wax dëgg rek nit ki ma moo bëgg wax dëgg sénégalais ko ko wax dëgg. jërëjëf avocat euh, ñu ngi lay sant di la gërëm. déet day yomb sama bés bi da nga koo fàtte. waa ñëwal ñu ci. day <laughs> yomb <laughs> waa boobu dama bëggoon après ma bàyyi boobu de bis boobu de Fallou. Ah. yaru naa ko yaru goo xam ne plateau bu ma toogati. Hmm. ba jóge fa te borom waxu ci bu ma wootee duma ma ñëw. <laughs> déedéet na ma ñor goo xam ne. suñu na ma ñor goo xam ne Fallou. damaa bëgg a liggéeyal Seydina Ousmane ci dëkk bii. la ma doon def lépp du woon liggéey dama doon taxawaal rek liggéey laa bëgg commencé te dama ko bëgg a ma dëkk la woon rek échauffement la woon rek bëgg a wàcc damaa bëgg a damaa bëgg a cëppeelu carrément nag ci terrain bi ah, damaa bëgg a cëppeelu carrément ci terrain bi naka nga ko bëggee ak euh, euh, yàlla dafa dogal ne ma damaa dëkk fu ñu wax sura ah. sura bari nañu am carte membre mais dajewuñu amul ay responsable daal maanaam mm-hmm. léegi nag ma ma ma ma ma tax taxawal fa loo xamante ne ni opération yaatal Pastef laa ko laa ko woon lancé woon naa ko jamono yee si ginnaaw euh, yàlla dafa dogal nag léegi dañuy taxawal première cellule bi ñu taxawal ci opération boobu maanaam sama deuxième cellule sama deuxième cellule maanaam première cellule bi may taxawal ci opération boobu mën naa ko wax responsable bi nekk euh, Malick Diop mu ngi dëkk Soura côté jaake Sëñ Mbaye Ndiaye léegi nag journée boobu nag dañ ko bëgg a def journée bu bu bu alaa dawme nag journée boo xam ne si nii cent pour cent politique lay doon cent pour cent Pastef suba ba ngoon lépp liggéeyal Pastef lay doon. nan la journée bi di euh, dañuy xëy waa GPS Touba ñëw fekk si ma sama koñ. comme dañuy sot gars yi dañuy sot. waaw nag fa laa bokk ah, nag waaw moo tax njëkk nga waaw GPS Touba dañuy ñëw. <laughs> def délégation bu mag. ku ne xam na ne yow yaa ko wax sa bopp yaa ne GPS dañuy sot effectivement dañoo mën seen bés tam nag képp ku fa am bis ñoom ñëpp dañ koy jël yanu ko ah. man bis bii rek bi ma ko lancé léegi ku ma ko wax da nga naa suñu suñu suñu yëf la hmm. ku ma ko wax ah. ku ko yëg GPS da naa ma loolu suñu yëf la hmm. mu leer la ne ñu ngi koy pare hmm. te des na mën naa ne presque un mois des na daanaka un mois te ñi ñi ñi ngi koy pare fi mu toll nii ñi ngi koy dund dañuy xëy suba ñoom ñu daje teel a ñëw huit ñëw fekk si ma sama koñ ñu def massification. maa dugg si koor wala day dugg si biir koor. non non mars. la da fekkagul ñu woor yaakaar na fan ci semaine boobu nag yaakaar naa la ñuy tigi mais day balaa ñuy woor la. ñu ñëw ñu def massification en même temps defaale wër ndomba enroulé euh, gars yi nga xam ne ñu ngi nekk foofu te ay primo votant lañu. ak euh, ñi nga xam ne amaguñu carte d'identité ñi nga xam ne yaa ma gën a xam ñu fexe ba ñëpp ñëpp ñu jël seen ay information pour bu bindu yi jotee ñu man leen a man leen a dimbale ñu dem bindu ci xam nga loolu ci politique bi la ci jàppalee Ousmane sonk la loolu mooy njëkkee buñ ñu ba añ jot ñu cëpp cëppeelu ñëw ca kër ga def añ noppaliku waaj doo dem na ca lu lu lu rëy laa rëy rey nag mooy installation cellule ba nga xam ne si nii installation cellule bu bokkut ak yi fi daan jaar lay doon ndax bii da da dana extraordinaire ku ko rate daal installation daan jaar de euh, xaar ba ngoon ñu def seen euh, délégation jóge fa ñëw installé <laughs> cellule ñu dem. bii nag bii nag bii nag loolu dana fa am sax. Hmm. mais day am yeneen. Ah. ay day am yeneen. Ah. ndaxte waa koñ ba koñ bi nga xam ne falaa laa dëkk. Hmm. bëgg naa ñu gis seen bopp ci affaire bi. Ah. ñu gis seen doom njariñ bu leen amal. ak seen doom lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy yitteem. lan lay xëy di ci gont di ci daw lan la bëgg lan la bëggal waa koñ bi hmm. loolu lépp ñor na ma pour ma wan leen ko lan moo ci rôle influenceur yi influenceur yi influenceur non sama famille lañu hmm. samay famille lañu est-ce que du ñoom ñoom ñoom laa ko njëkk wax ah. ak borom site internet yi <laughs> borom ñëw naa bàyyi billaahi ku ma ñëw naa bàyyi <laughs> gis nga influenceur yi ah. may lancé affaire bi da ci am ñoo xam ne dañ ne da ngay fexe woote bis ñun ñëpp ñu def délégation ñëw. waaw ñëw ca koñ ba lancé affaire bi ñëpp gis ko. Hmm. te nag gars yi fi ñu toll nii ñoo poñe réew mi de. influenceur dañoo poñe réew mi. fi toll am na waa boor bee bu ñu sañoon <laughs> ñu weccoo ndax ñun dañoo am yar dañoo am xam ñoom ñu jël dof yeeg ñun dëppaloon ñu ñu ñu wéruñoo ñun ñëpp ñu boole leen dof yi maanaam dof yeeg saykat yeeg dóorkat yeeg ñoom ñu boole leen ne leen kaay ñoom. kii bi poos bu diis bi ëppee nag. moo tax may la moo tax may la dof ya dof ya ak fa lañ dem dem. xam ne fu ay yoro kalaa nekk. gis nañ ñoo xam ne euh, euh, barki démb xaw ma barki démb ñu ngi leen di yóbbu ah, loolu la ñoom ñoom ci lool la ñuy dox. saaga saaga saagakat yi xam nga ne ku la jàpp saaga laa saaga saaga ba nga tooy. Hmm. nga ne da nga koy jëndal oto dégg naa ñu naan cent millions. Ah, gisuma ko nag. gisuma ko nag waaye mën naa nekk mérité na ko nag. Ah. moom ah mérite am la di ndaxte déggoo man la ñoom seen parti saaga dafay fay day saaga Ousmane Sonko da doon saaga Ousmane Sonko ne bi mu cëppiloo ci réew mi ak léegi bi mu mujj gi fu jaar di mel ne kañ ak bëccëg ñu topp ko ndiiraan fu jaar ñu topp ko ndiiraan léegi saagaatul Ousmane de yaa ngi koy dégg dëkk bi ku fi dugg da ngay da ngay yaru ba ba ngay génn booy saaga Ousmane Sonko ko saagaa ci dëkk bi fii ñu lay dóor mën nañoo bañ a doo xam fu ñu dëkk. jërëjëf noonu lay demee rek bis bi daal moom mi ngi noonu na gaa yëpp pare le 17 mars. Hmm. te bu bu bu affaire Ousmane Sonko boobu ak waajoo ji noonu Prodac jàllee ba ci suba la. incha allah nañ ñëpp ñëw jël oto yi. Hmm. ñii jël voiture jël ko ñii jël welo jël ko ñii jël trateur trotteur la xaw ma jël ko. Hmm. lu waaye mën a dugg pour ñëw daal na nga ñëw te xam ne sura moom moom jour boobu la 17. incha allah sura moo ko moom seen xarit avocat Sonko moo fay woote. mooy woote di woo waa yëpp nag. ñu génn wuy si ma te xam ne daal du yomb daal. jërëjëf avocat Sonko ñu ngi koy sant di ko gërëm euh, disponibilité am engagement ci parti Pastef ñëpp kenn duñu ko werante euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi doon seetaan di joxe dig daje beneen yoon ci beneen waxtaan.